اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم السلام عليكم ورحمة الله yow mbokk julit bi nga xam ni yaa bëggoon a jàng sa diine moo xam njàngum alquran bi la wala nga bëggoon a jàng arab ak yeneen fànn yi nga xam ne ci xam-xamul islam la jëm te cuk dem jàngi yombul ci yow wala nga yor xale yoo xam ne bëggoon nga ñu jàng te mënuñoo dem di jàngi ji moo xam fii ci réew mi la ñu nekk wala ñu nekk bitim réew Tasnim online indil na leen plateforme boo xam ni bu matale la am ci ñaari programme yoo xamante ni tëral nañ ko yi jëm ci njàngum alxuraan bi yi jëm ci jàng arab bi ak yeneen yi ci topp ngeen ci ànd ak jàngalekat yoo xam ne yu xarañ lañ ci njàngale mi ngeen mën a jàng seen diine fekk ne yéen a ngi toog ci seen biir kër wala ngeen nekk seen bërëbu liggéeyukaay bu ngeen ci bëggee gën a am lu leer mën ngeen jokkoo ak ñun ci numéro bii di 77 796 73 71 wala ngeen visiter suñu page web tasnimonline.com tasnim online le savoir à portée de clic به ترقى به تحيا عالما حرا فخور كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك